jërë ngeen jëf mbokki wasaare lamb ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax gis ngeen tey nag samedi ñoo ngi fii arène nationale sam woowuñu fi ci combat yu mag yoo xamante ne combat yu neex mu dox ci diggante Coly Faye ak ki nga xamante ni mooy général combat spécial moo ngi ci di géew bi ci diggante Mbaye Xadar ak Seck Ndaanaan beneen combat spécial bi nag dox ci diggante 2 Giga ak Rëm mbokk yi tey Sam woo nañ fi ci ay journée yoo xam te journée yu neex a neex la mbokk yi xanaa di leen jox dig daje ci kanam dinañ andi ambiance tous bak ak bëre lépp fi lay xewee ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf. gis ngeen mbokk yi kilifa yaa ngi noonu di takk ngemb li maa ngi taxaw Père Bourkhane Père tey nag ngeen andee seen mbër. waaw euh, serein rek xam ni combat bi dafa am solo te ki muy bëreel c'est un grand champion ci écurie bu mag la nekk tey moom combat bi combat dal la combat lecture la combat la boo xam ne xam nañu bu ñu ko xam nañ fi mu ñu yóbbu te boo xoolee. école rek actuellement nga xam ne am na état entraîné na. mais damaa gis nga xamante ne mooy général tey dafa andi endurance dafa mel ni dafa waaj xeex bi est-ce ngeen lool. waaw xam nga làmb moom ah, da ngay xalaat mu gaaw mu yéex nga xalaat mu yéex mu gaaw kon làmb tey bi làmb lecture la laa wax làmb lecture la il faut ñu toog bare ko ci xel ba lu ñu yàlla may ñu jël ñu ñu ñaan yàlla nag yàlla may ñu dem lu sedd guy. jaajëf maa ngi fi ak Coly Faye numéro nuyu naa la. waaw fay grand. loole maa ngi sant yàlla bu baax. tey naka ngeen waajee micro baa ngi fee tey naka ngeen waajee andi seen mbër. waaw ñu waaj nañ ci fulla ak njom ak ngor rek ñëw pour waajal bëri suñu combat quoi. mais ma gis général endurance la andi ak physique naka ngeen est ce waaj ngeen loolu. ak xeex bu métti dina ko fekk incha allah rabbi ñun tamit waaj nañ côté yëpp xam nga waaj nañ si endurance waaj nañ xeex waaj nañ. est ñu arrangé wu li fekk fi incha allah waaw waaw pare Koulibaly yow bàyyi ko bëri. non bàyyi gu ma bëri waa ji gu ma bëri def naa ans. def ans normal nii kase kase def def ans ñu yokk si deux ans ma dese huit ans lamb bàyyi gu ma lamb. kon boobaa ak léegi lan moo tax bëreeguloo. non dara nekk si ay bagage rek nekk si ay bagage rek mais fu mu nekk ay combat fu mu nekk nii. sa diggante ak ñaan. ay ay mbër yu bëri ay cootoo boo ko laajee kii moo la ko. Burxaan mii am na ay promoteur yu bëri boo mais man Zos Saalum Zos. Zos meen waaw amagul combat te bëgg na combat ay naataangoo nañ ma ak moom nañ ñu boole combat jeeg la. mais loolu dina neex de Zos kulifay. day ragal sax du du ko jël ma xam naa day ragal ndax am na fu ñu jaar maa ma mbapat loolu moo tax du ko jël. loolu daal la lépp leen bëgg fu mu nekk nii. maa ngi leen ziar naa. maa ngi lay fay. mais félicitations. merci waay ñoo ko bokk. Ah. mais tey ngeen ñëw andiwaat seen poulain. tey naka ngeen ñëwee. waaw ñëw war a liggéey lépp yaakaar naa looy simili moo def si nga ñaanal yàlla mais dama gis seen adversaire te dafa andi endurance physique boo gisee sànq ba moo ngi daw di wane ne pare nga njort naa ne xeex moom dina ci am bu xeex amee nu muy demee. waaw Thionou moom lu ma dina fekk ko fi caare dañoo baaxoo man man lépp si làmb dara jaaxal si làmb tey nekkul si quoi tey général lu ma dina fekk ko fi incha allah. tey daal pare ngeen lépp. pare nañ lépp comme bi da nga mu demawaat noonu. jaajëf jaajëf grand bi. Rëm nuyu ci loonee. maa ngi di sant borom Tuubaa wér wér wér. waaw ni pare nga fi mu. waaw pare naa moom. loo andi deux Ziga. bële daan ñibbi rek moo loolu. waaw di ñaan yàlla. gis naa mu simmeeku sotteekoo soow mi daw stade bi yëpp yuux. waaw noonu la mais maa ñaan yàlla muy may ndam may ma rek. man instant bi esprit bi fa la toll. mais instant bari Serigne Bamba bilaay. si jàpp la. ci loone maa ngi nii rek. mais fi toll nii naka nga yëg. lu mbër di yëg rek. waaw. dafa mel ni suñuy paa yaa ci topp de. waaw nu mu demee. yaa waroon bëre après ñoom sekk doo ko bëre. waaw déedéet man maa war a bëre bi quoi. waaw mais instant bi état de forme fu mu toll. instant yi ñun nice. waaw gàllaat dana jàpp. non ñun ay yow ñun ñaay mbër. ku nekk a ngi ne tekk taxaw di déglu sa morom. cey làmb. ñoo ngay lewaatoo. nekk ndaanaan Seck ngi taxaw jël temps waaw Mbaye Khada jël na benn avertissement Seck jël na benn avertissement bëreegu leen Habib siflewaat na Seck ndaanaa nañu woon ginnaaw Mbaye Khada lañ jaakaar lool Seck bëgg na accélérer affaire ay ca général général daw na jaar ni Coly daw jaar ne Seck ngi ah, Mbaye Khada doon na léegi kuubu daal Seck ndaanaan ëttal na ko Mbaye dem na wala Seck dem na bokk Seck ndaanaan Mbaye Khada. ku nekk am nga sa ñaar batoom waaye Seck suufee nga sa bopp ba ndaanaan Mbaye Khada ku nekk am na benn batoom jógaat na ñoom ñaar plaqué ko moom Mbaye Khada Seck bañ Seck ndaanaan Mbaye Khada ñoom ñaar mbokk yi dañoo xaw a doole Mbaye Khada door na léegi benn. Seck ndaanaan Mbaye Khada. ñoo nga jàppante ñoom ñaar habit bi sifla na bëgg nañu ba mi-temps Seck ndaanaan bay xada Seck ndaanaan bay xada mbokk yi Coly Faye ngi fee def ambiance moo ak bu Fass waaye yàggatul léegi ngeen dugg ci diggi géew bi Seck ndaanaan bay xara ñoom ñaar Habib bi atana jox na ku nekk deux avertissement nee na bëriwu ñoom ñaar Seck ndaanaan Mbaye Khada Mbaye Khada ne tekk di ko topp Seck ñoo ngay xeex Seck dóor na léegi sekk ndaanaan mbay xada mbay bëgg na ko waaye boobu fa mu daa sori plaqué na ko waaye léeg-léeg sekk ndaanaan mbay xada bëre sekk ndaanaan mbay xada la roof na ko taxa bal sekk sekk ndaanaan daan na xada waaw sekk ndaanaan daan na xada waaw sekk ndaanaan daan na xada Seck ndaanaan daan na Mbaye xanaa Mbaye daa mel ni loxo ba daa simeeku Mbaye daa mel ni loxo ba daa simeeku wala dafa damm eh Mbaye xanaa Mbaye xanaa loxo bi daa damm loxo Mbaye xanaa bi daa damm oh loxo ba daa waaw. meex loxo ba daa damm metti na meex daa loxo ba daa yow lu dal lu dal dama bu ñu yàq làmb ji waay. dañuy yàq làmb ji waay. léegi ba tey taxaw mu tëb barrière yi ñoo tëb barrière yi ñu yàqoon. Ah, waaw man loolu nee na ba bay loolu yëpp yàq làmb ji moom moo yàq làmb ji moom boo ko kontal. ñu ko bàyyi rek.

tey dama doon dee rek mais du ma daanu mais li ma métti du loolu mbay daa damm te warul damm bugguma woon mu damm loxo bi moo ni kat damm dama ko damm barki alxuraan bugguma ko woon damm ndax sama nawle la barki alxuraanu karim mais tey dama doon dee mais du ma daanu nan ma jox maama Lamine papaam ma tey ko ci gat. kan ak kan na ñëw ñu bëre. alxuraan na ñëw ñu bëre maama na ñëw ñu bëre. bu la andilee Abu Ndiassé looy Abu Ndiassé na ñëw. nañ ñëw. Diatou Fora sooloo ma ko koy doyee. Diatou Fora lu koy doyee. ñu gis ko a noonu. gannaaw waaw waaw. général a ngoog général. su loo ne. maa ngi jàmm bu baax. mais la moo doon sa teewaay ci làmb. waaw sama booy moo doon bëre nag sama poulet moo doon bëre quoi Siteu moo doon bëre quoi moo taxoon ma ñëw ci làmb ji ak seetaanaale làmb ji tamit waaw. fan ngeen toll dama gis kii nekk sa ginnaaw daa mel moo ngi waaj bés. waaw ñoom ñaar ñëpp dañu am bés parce que Kewel mi am na bés Bour Sine mi am na bés ak yeneen i combat yi préparé ñu ngi ci incha allah. préparation yi fu mu toll. waaw ñu ngi pare rek di xaar les sources yi rek ci kattanu yàlla yàlla defal ñu dam da ñu ngi entraîné bu baax moom maa ngi ànd ak ñoom ñuy entraîné bu baax a baax a baax. kontaan naa ci. ñoo fu ci loone sant Serigne Touba. Euh, naka ngay waajee sa digganteeg mobile. waaw pare nañu fépp comme d'habitude rek comme ni ñu doon waajee combat bi dafa mel ni mën naa am xeex de sa diggante ak ah lam bëre doon la ñu wax lépp la ñuy pare xeex bëre waaw pare nañu pour lépp pare nañu pour bu arbitre ne prit ñu door ko mu daanu wala bu arbitre ne prit ñu li njaa ñibbi. kontaan waaw. maa lay fay. maa ngi jàmm bu baax sa diggante ak ñàkk. Ah, maa koy waajee rek comme ni may waaj yeneen ko yi rek. waaw entraînement. mooy loolu ñëw def li ma war rek. ñàkk ndaanaan waaw ñàkk ndaanaan la mais ndaanaan lay dajeel. waaw ñaari ndaanaan amoon naan. kontaan naa ci. waaw yéen ñoo fa. Fils de Balla ziar fay naa la. ci loone maa ngi nii rek lépp yaa ngi ci jàmm. sant sant bu baax. waaw ah, da ngaa namoon làmb. waaw waaw namoon naa ko kay moo ma ñëw seetaan si. Ah. Mhm. Euh, boobaag léegi dafa sa combat général bi mu taxaay boobaag léegi da nga fi amoon blessure tane waaw waa tane laa léegi tane bu baax kañ moom maa ngi sant bu baax. léegi foo toll yaa ngi yaa ngi wàccaay yaa ngi ci wàccaay li ba léegi wala. waaw ñu ngi si wàccaay kañ ñu ngi xaar ñu jàppalaat ñu dara pour ñu bëri. yàquwul de yàqu fan pour lan muy yàqu ko soxla. combat du bu yàqu sax. combat boobu fi mu toll nii wóorul sori ndax yéen ñaa waajoon ngeen ba noppi. waaw xam naa mois août bi xam naa moom a du génn si août bi de xam naa. lan nga wax Sénégal. Oh, man aw ma lu ma koy ñaanal jàmm rek parce que dégg naa bi mu yëgee ne da ngaa feebar sànni na ci ay kàddu nee na da daw lu ne wax na ko. waaw loolu waxam la waxu mbër la. seetaan naa ko kay. waxam la rek ñu ngi ñaan yàlla bañ jàpp dara ñu bërewaat si jàmm. loolu laa ñaan ñaan sama rek. jaajëf jaajëf. baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ. diggante Boy Lo Tapha Xaragne abib bi siluwaat na loo Lo moom lañ jàkkaarloo Tapha Xaragne moo ñu woon ginnaaw Siteu bëri nañu ba mi-temps dellu si waat ñoom ñaar waaw bëri nañ 15 minutes comme ni nga koy waxee ñun mi-temps dellu ñëwaat mais avant arbitre bi su wax naa ak ñoom ne leen bëreewu leen dara am nga ku nekk deux avertissement te heure bi jot na guddi na ci nekk am nga trois avertissement kon ma juum ku ci nekk am nga trois avertissement léegi bu ñu amaatee yeneen deux avertissement kon lamb ji day jeex te am na loo xamante ni nag wax dëgg yàlla ñoom bu dee ay góor lañu war nañ faa mën a bañ a yegg askan bi daal waaw. Oh, xas-xas loolu fi ñoom ñaar xas-xas loo bu mel. waaw toujours dama koy wax xas-xas loo mbërëg waxi moom jarul basé wu quoi parce que lu wax bu doon lépp dañuy ñëw rek jëf ko kon yaakaar naa benn wax ak yooyu des fois mbër wax nga ne bu jàppee moromam da koy rey mais bu amee suble mu taxaw di ko déglu. ñooy lewaatoo ñoom ñaar Boy Lo Tapha Xarañ ñooy noonu ci diggi géew bi dara amagul booba léegi. dara amagul booba léegi mais Tapha Xarañ moom dafa aligné garde gi rek si kaw moom Boy Lo di dox mu koy wër-wër si biir géew bi moom it war naa jéem dara de wala ma jéem a sànni góos bu mu téye si kaw. te bu yàggee ma toog di leen seetaan sax a waxal. lii kay waxuma la toog da ngay taxaw ba sit am rek nga ànd seet benn yoon kon. kon waaye daal arène bi yëpp ñoom la ñuy Xarañ ak Boy Lo ngemb lu weex ngemb lu xonk moom Boy Lo moo yor lu xonk li Tapha Xarañ yor ngemb lu weex li jege wante nañ wàcc timbal si suuf. xale dafa mel ne des fois dañuy desee mën a bëri. wallaay amul sax des desee dañuy ñu am na suñu bëri dañuy tëlee bëree te fi gis ay combat yoo xamante ni da nga naan lii bu doon ma la dama wàcc suuf ba baadu gudd rëy moo leen boole ci làmb. wala say waa koñ toppale ne demal nga ji rek demal nga bëree ji nga ànd sa ruuru waa koñ dem bëree ji mais bu abi suuf la nga xam ne làmb amoo fa place. wallaay làmb daa am ñu ko moom. dañoo toog déglu leen boog ba ba ñu bëgg a daan. mais booy loo daa mel moo ngi dox ci kawam di ko sànni ay coups. waaw moom mu ngi dox di sànni bëgg sa waay jóg mu déplacé ak moom mais sa waay dafa jéemal dara bu sànni day arrière xajal ko bu doon ñëwee day rëpp def kaat après rek wala mu waaye de mais daal Tapha Kharagne jëlagul décision moom comme nu Boy Lo jëlee décision. waaw waaw ñam na benn moom Tapha Kharagne daa mel ni dégg na ma de bu jëlee décision rek lamb ji jeex Tapha Kharagne. Tapha Kharagne Boy na jël décision rek moom Tapha Xarañ. jàpp gis ko oh. dajee nañ léegi ba booyloo door ko benn remise bu dal. ko defee nii léegi mu gaaw. léegi jeex gis nga booyloo dóoraat na ko remise. booyloo dóoraat na ko ñu ngi xeex xeex bu jaar yoon de. Tapha Xarañ bu jëlee bu Tapha Xarañ jëlee décision rek lamb ji jeex mais bu téye boppam rek gis nga dajee nañ ñoom ñaar lu ma la waxoon rek nañ bàyyi xel lamb ji mën naa jeexee si suuf waaw waaw mu ngay door si fàmbu yi booyloo mbir fu mu jàpp Tapha Xarañ booyloo mais ngeen bu xale léegi du neex a jàpp nag liñ si def moo bëri macha allah dafa xarañ a ngi jéem a jàpp mais ba tey dara sengoor yi kenn du ko takk da nga ñëw rek roof dafa xarañ dugal na. booy booyloo na jéemul fu mu jàpp moom it dafa xarañ waaw waaw booyloo fu ngay ut. booyloo plaqué na ko léegi. taxawaay bi baaxul moo tax bu ko plaqué du dem. dëgg la plaqué dafa am nooy taxawee ñu mën laa plaqué nga dem. ñoo ngi ci wetu saako yi ñoom ñaar. waaw ñu ngi ci wetu saako yi mais na arbitre bàyyi rek ba action bi ñu xool fu muy mujjee. waaye saako yi fekkiwul kenn. yaa koy fekki saako bi nga fi tegee ay midi ku dox ñëw rek yaa ko fekk mais moom du fekk kenn. waaw tant que lamb ji jeexul daal moom du fekk kenn dafa xarañ fu mu jàppoon baax na mais dindi na ko benn loxo bi mu ngi ut fu mu jàpp mais. booy jàpp baax teg ko cooñ teg ko sikkim bi dengeñ ko. booy loolu lii mu def bu ko neexee mën naa jog songale ko bu ko neexee mën na kaa ëñ mu ñëw mu dóor ko aas. est-ce que attan na ko. non non waru ko mën a. waru mën a diis si moom. waru man a diis si moom yenn diis yoo xamante ni du ko bëgg ko bëgg def du ko xaj lam ko bëgg a def moom pour man ko waaw parce que foo ko ëñee foo koy songale wala foo ko ëñee foo koy dóoree aas benn lay nekk mais bu diisee rek poids bi day poids am ak sa poids moo lay daan. te mën na kaa añ mu ñëw mu door ko caxabal. gis nga ko dóor na waaw. gis nga añ bu ma la doon wax man sa diis ba yàqoo ko lu mu bëgg a def ba tey jàpp bi des na assuré mais bu jàppoon ba assuré mën na ko daan si lii ma lay wax da koy añ mu ñëw mu dóor ko ans wala mu añ mu dóor ko caxabal bi waaw moom booyloo mais lu amoon bu njëkk yëpp ñàkk na ko léegi. est-ce caxabal dina fi xaj parce que ñoom ñaar boo xool dañoo xaw a féetee suuf plaqué na ko léegi sàcc lay nekk caxabal boo xamante kenn du ko foogee sa morom parce que boo xoolee ñoom ñaar ñëpp dañoo tolloo moo tax man la ku si bëgg a song sa morom si ñoom ñaar da ngay am problème. la carte avertissement. laa mu ji de boo saaganul de ni muy mel ni ku ci nekk sa 15 pour cent dagg nañ ko de. waaw moom kay ku si jëlee reliquat moom dina am lu manqué moom. moom mu ndaw moom defe naa ne bu ñu daggee 15 pour cent am. Ah. daf nañ ko lu ko gënalul de. daf nañ ko lu ko gënalul de mais tamit wax dëgg yàlla ñii moom ñoo ko teg seen bopp moom. parce que bañ leen fay xaas dañ leen a dem leen ngeen entraînement ñun ñoo bëree. entraînement moom buñ luñ la def yaa ko yaa ko def sa bopp diggante Tapha de dina gaaw. combat ba day gaaw parce que deux siga moom làmbam pata patamee la ab njool la nii moom deux siga. rëm nee na musuma bëre combat deux minutes. la benn combat rek moo xawoon a yàgg muy moog lasandeer bi mujj bii nii stade Bargny bi wax dëgg yàlla mu nekk ndaanaal moom rëm booy xool deux Giga ba mu fi mujj mën naa ne presque bu ma juumul booy pire la woon moom it mu bëree combat bu jiree bu yàgg mais en tout moment rek taxawaayam moo koy génne si combat yi tey nag mu ñëw am koo xamante ni mën naa ne presque ñoo tolloo taxawaay moo tax ma gëm ne lamb ji dina war a mën a gaaw si ñoom ñaar dina war a mën a neex muy deux Giga ak rëm ñoom ñaar ñoo ngi ci digg géew bi tabaxaañ booy loo naa sonn sax lewaatoo jëm suba gannaaw suba kenn daa mën lamb xale ma ne day gaaw waaye xale yoo xam te ne entraîné toog nu leen neex ñëw fii di benn benn jëm gannaaw suba dama reporteetul sax nag damay toog di leen seetaan comme ni waa tribune bi toogee di seetaan waaw abit àtte na juróomi avertissement lamb ja jeex na match nul lamb ja jeex na Alassane Mbaye mbokk yi combat spécial noonu dox ci diggante deux Gigas ak Reum la moo mujjee daal ki mooy kon dégg Siteu deux gars yi noonu Reum jox na leen ku nekk lan wala boog trois avertissement pour Reum teel naa bari di benn ah. Habib sifle na deux gars Reum ñoo ngi demee wet ñoom ñaar Reum tibb na suuf Reum tibb na suuf deux gars arñe na dem wuti ko xeex bëree lu ma la waxoon rek combat bu gaaw la xeex bëree ñaari njool lañ deux gars ak Reum Deux Giga nag moom ba mu fi mujj combat fils de Balla Tapha Leer la bëree woon mais maa ngi fàttali ko kan la daanoon jëlee bu rëy ba rëm ba mu mujj moog la sendeer la woon grand combat sëñ Modou Niang production moo ko tëggoon mu daan ko. Eh, rëma ngay soobu nag. ma ngay soobu mais na moytu Deux Giga day dóor day pakate na moytu loolu bu baax a baax ñaari njool lañ. te Deux Giga daa bëgg a xeex tey. Deux Giga cokkaas na léegi. dóor na dóoraat. Deux Giga rëm. rëm ngi de yor ndànk-ndànk rek. mu ne rëm waa rëm loxoom jógul deux Ziga dem na ñoo ngay xeex. laay laa illallah deux deux Ziga nag dugubam dugub baaxul. deux Ziga dafa yooru. rëm sol na ko pala oh, rëm. daan na doole doole rëm daan na rëm daan na ko. rëm daan noonu mbokk ak Coly Coly Faye noonu di dem ci digg géew bi Coly Coly combat bi dañ ko soxla du dóor du def dara barki Serigne Sidi Mbacke ñu bëri woon du xeex du def dara talal ko sa loxo ubbi ko kese ferme ko bul sax léwatoo laa laaju léwatoo direeku rek Coly Faye a ngi noonu Coly Faye wax dara dégg nga père nee na bu wax dara Coly lamb sa lamb la gis nga noonu. yow benn ndaal ko ci diggu bopp bi. door ko mu toj. Rama noonu eh kay. Rama noonu di wax ak kolifa yi. Eh, eh, kay kay. <laughs> Rama noonu. général yi noonu di dem ci digg géew bi ànd ak a ngoog. ménage bi waaye yëngu amuñu Garga champion la na gars yi wax su moom war na sëñ Bamba dañ maa taxaw ay po yëmbal maa leen di ñaanal ñoom kaat yëmbal ñoom waxal ci combat bi ci combat a dem a si kanam ñuy xam kuy rëm mais abi dafa sifflé ma conseillé man boo gisee tey ma sax ba ñu ma ànd sax ba ñu ma ànd ñoo ngi naan maa conseillé nee naa ma tey dañ maa conseillé ne ma ma moo tax ma tey rek xam nga rek gis mu cokkaas la cokkaasaat la chaque jour nga fermer garde bi dox ci kawam. waaw champion la di mu jàpp la dañuy def émission ñëwal daal ma motalee rek waaw maa doom benn bi mel mel ni doole dafa a sa diggante yow ak moom. na man mooy loolu man man jamonoy corona ba léegi maa ngi entraîné moo ne sakan non après yow moo ma seet suñu wax daal may defee daal may defee di ma seet suñu téere ba ko takkee est-ce que noonu la dafa nga xoolal nee na ko matt ko waaw walbati na ko dafa génn noonu di am lu muy defaral Général di ko defaral téere yi cëy faasa ngi noonu daf may fàttali xoolal ma Xaadim Njaay xoolal Xaadim Njaay Xaadim Njaay xaadim yaa ngi noonu ànd ak Coly Faye Moustapha bu Faas ànd ak ki nga xamante ni moy général bu Faas cey làmb làmb ngi noonu ñoom ñaar am na fi tàkkusaan bu ne tey ku ci nekk yaa ngi andi ñëw andi sa poulain ñu war a ñoom ñaar Moustapha Gueye ngi noonu defal na ko mooy noonu di ko wala boog demagul. cey làmb kenn du bas bas fay naa leen dafa métti dafa métti trop parce que gis nañ yaa ngi ànd ak pression waaw nga rek man sax bu euh, euh, naka laa ko mën a waxee général rek xam nga euh, bokk na ci xale yi gën a respecté entraînement yu gën a dégg ndigal entraînement donc bu amee nag bu amee nag donc euh, bu amee bis lu bis bu toll toll day ñëw assister ko waaw di ko ñaan yàlla aussi meek victoire. mais dañoo gis nga ñëw andi général euh, Khadim Ndiaye ñoo andi Coly Faye. lan la leen a tey. ah Khadim Ndiaye bon Khadim Ndiaye nag bu doon ma bu doon ma tëkkale Khadim Ndiaye tamit. Ah, li nga ma tëkkale Khadim lu tax duñ la tëkkalee Khadim ah, Ndiaye. alors Khadim Ndiaye bokkuñu niveau. Khadim Ndiaye bëgg nañ ma daan ko benn. te dama ko mayoon chance nekk magam bu leen ma tëkkale Xaadim boobu niveau soxla ma ko bu ma wax affaire Xaadim Ndiaye damay dem bàyyi leen parce que taxawal taxawal bu ma ngeen ma tudd Xaadim Ndiaye non Balla Gaye juróomi avance ngeen an loo koy moo ëpp waa ji taay ñu tolloo gabar yi te moo moo ko gën a gudd carrière moo ko jiitu lamb Mais non, toi, tu déranges correct, hein mu donc nga xool ne kon moom dafa war a profité ci guddaayam bu mu gudd jox ko distance woo ko ci xeex boobu adversaire bi jógee mun ko téye ndaamal tamit bu ñu koy conseillé ndaamal dañoo ko ñuuxul ki njool daal day dànd ki gàtt ñuuxu kon boog dañuy war a séntu rek ne combat bu bu ñu sifflé rek euh, mbëru caaroy bi euh, Coly Faye dafa normalement dafa war a ñuuxu si général pour am si contact général tam war ko sori pour mun ko dóor donc nag loolu loolu euh, euh, moom mooy li logique. mooy seen première sortie yéen waa Fass. non def nañ ay sorties mais première sortie grand combat oui mais bëri nañ fi ay 3 4 combats yu ndaw am ay victoire quand même. ñu ngi ciy lancé bu baax bu tey jàllee suba. combat combat capital la. voilà combat vraiment combat capital la et ñu delluwaat encore rek di ñaanal ñaari mbër yi am jàmm ak salaam di ñaanal aussi Maodo am ndam ci kaw Abdou Diouf. parce que euh, moom fi mu jëm ak fi Abdou Diouf jëm bokkul moom Maodo fi mu toll moom mooy effacé defee tam dugaat ci groupe bi defar carrière am. mais est dina yomb. non du yomb du mën a yomb na sa waay dafa am enjeu bu ci neex bu ci am nag enjeu bi moom mooy. Euh, sa ba rakam. Euh, dafa am benn benn benn taarix bu mu bàyyi fii bëri naa ñaar ñu bokk ndey ak muy Gris Gris Bordeaux ak Gris donc loolu rek histoire la bu arrivé nag à génn ci moom. Euh, Abdou Diouf dina def lu dina marqué histoire Sénégal ci lu mag. bu ñu ko daanee sax c'est moins grave parce que carrière yi bokkuñu moo ki muy bëreel. bi tam dafa diis Gris 2 ndax ci défaite la jógee. diis na trop moo tax daf ko war a effacer coûte que coûte. mais nag euh, waxtaan nañu ak moom ba du nekk pression ci moom l'essentiel mooy lu mu gën a yombale rek moom mu gën a baax ci moom te yaakaar nañ ne bu subaa jàmm daal yàlla dañ may nam ko incha allah moom lañ ñaan ah si si ah ok digal nañ mu yàggal combat bi maanaam na tàng. non dafa war a dafa war a mag paase yoon wa non dafa war a tàng ah. suba moo ñu war yee ginnaaw bu ñu général yee tey tey bu ko andee dogal borom bi. Ah, combat bi jàllagul. bu suba Maodo war ah, ñuy daf ñu daf ñu war a <laughs> ñu yeewee nag. ñu ne ñu daw ñu daw wax su xëyee mu ngi xool ci looy xëy ci looy fan xam nga dafa métti te du la ko wax xam man jinne laa man jinne laa man jinne laa xam sànq nii rek nee dama dama doon jooy maa ngi takk sama verre timis jot na naa ko tekki du ma ngaa xam nga man kaw nag laa jógee. waaye nag sama yaay sama yaay sama yaay sama yaay ak sama papa ku ne xam na ne bu ko tudd man sama yaay daf maa ñaanal sama papa ñaanal ma samay sœur samay mbokk man zéro faute. yaay yaayam yaay papaam. waaw loolu de xam nga man sama famille dama la man gàcce nga laa ma barki Seydina Mouhamed te ni ma leen jàppee noonu laa jàppee. maa la fekk wax ca marché ba ngay dugg dugg mu rëy pour sa waa kër. gis nga yow noonu laay def man nit munu maa topp nit munu maa yàq yàq yaay Baba Diagne da ngay sonal sa bopp na ma baax yaa ngi dégg a amul solo da olof Njaay nee soo xamul xamoo boo xamul nit ki da nga koy oowee eh man sëtu Serif laa ku ne xam na ne man sama yaay laa am sama yaay laa am mooy sama fierté ak sama papa man su ma jooyee ci sama yaay wala ma jooyee sama papa damaa war a jooy jaatu na du dëgg te xam na sama diggante digganteeg sama yaay sama digganteeg sama papa yal na ko yàlla yërëm ak mboolem wéyjur bu dëdd yàlla koy fal suuf si seen kaw bi jaay seen naam xam tey nit jigéen ju am fulla nga ju nangoo liggéey gëm boppam takk sërëm kon ku yabu yéene la jàmm te xam ne bëri ko ci mbartal la billaay maa la wax lii de àdduna lu dul liggéey liggéey ko gën te gis nga kuy liggéey ak ku dul liggéey bu weer dee du ñu yem payoor c'était général ak kilifa yi en tant que lambolo lambu jinne la de ku juum da daanu général mu ngi ci état Coly Faye mu ci état ku ne xam na ne xale yi dañoo ñemee entraînement te dama naan la làmb bu kenn diwoo man da naan ba dimanche te ngoon nañ xaar ay minutes ñu xool eh yow ndax ma si sama doomu de ji jëlal ma ko Feuz Feuz na wax moo def doomam saa su ne rek ñuy wax sa day naan ful sama doom euh, loolu rek mbégte la si man sincèrement tey nag ñu tuddee ko drapeau buñ ma ful dañ euh, euh, dinaa bàyyi lépp lu may def ñëw ci ñëw ci sa parce que nekk bésam la am donc ma koy ñaanal drapeau bi mu nekk ay drapeau waxee benn te tuddee naa ko waa Dakar Buzz. Coly Faye toj général toj na ñoom ñaa noonu ci digg géew wi laay Siteu noo gisee bii combat. waaw lu nga wax rek Coly Faye dafa toj nen général toj nen général delloo bindaat benn étoile tibb su ñeent ko ñëpp raxasoo ko ci loxo yi arbitre bi doom yaay. arbitre suble na tey la samedi il est 21 h ñoom ñaari noonu ci digg géew bi waaye jegeyantoo nañu est-ce que gisoo ni Coly Faye dafa bëgg a dem. waa di fàttali gars yi seetaan rek ne Coly moom lañ jàkkaarloo général moo ñu wan gannaaw. xeex nañu dafa bëgg a ñëw moo ko gënal parce que xam na taxaw xeex ak taxaw di xeex arrangé wu ko. mais nag naatu kii kii di général xeex bee ko gënal lu mën a am. ku bu mu jël te baaxul mën na feeñ ci moom. mën na feeñ ci moom moo tax général daw bëggoon a bagaar ak moom qualifié daw xeex bi ñëw jàppante lii mooy avantage su qualifié ci combat bi mais bu amoon distance taxaw xeex ak moom day métti si qualifié ku ko conseillé li ñu ko conseillé moom qualifié baax na dawal nga jàpp ko. mais coup yooyu muy encaissé baaxul général coup yi mu door a ngi dal général qualifié général mbokk yi moo ñu woon ginnaaw ngemboo ngembul vert li teg ci moo sabu weex bi qualifié moo ngemboo ngembul lu ñuul li général la ngay waaw lu nga wax rek coup yooyu baaxul mais coup yi seew nii da lay sa kanam gi rek. mais moo gënoon mu taxaw nar a bagaar ak moom ku yooyu ñoo gën a métti mu daanu xajoon na si mais daa qualifié ni mu def ànd naa si général yi na fexe bu ko mënta daan fii buñ génnee seen jàppante bii ni buñ taxawaatee na bañ teel a jàppante bi pour bagaar ak moom xeex ak moom mën a am dam lu yomb si moom. moom général moom général looloo koy arrangé taxaw xeex ak moom waaye qualifié du nangu lool benn yoon. Coly Faye du nangu lool moo tax it xañ na ko lu mu bëggoon xañ na ko lu général bëggoon andi loo xamante ni moom Coly Faye moom la bëgg mbër chaque jour rek da ngay naxante sa adversaire bu bëggee lii da nga koy xañ loolu andi ko lu nga bëgg yow wax dëgg yàlla Coly Faye lu teg première pas ànd naa seeg moom général moo war na daw jàppante bi di ko ñam gos di arrière mais Coly mooy mayu ko loolu yëpp dafa daw ñëw jàppante nag moo tax général ngay xeex mais Coly jàpp bu yàgg mu jàpp enjeu ko mbër su fekkee xeex enjeu soo jàppee da ngay fexee liggéey mais saa boo jàppee taxaw kuu yi gëm naa ne bu siggee dina dem ardo de ndax ku yëpp a ngi daal ci kanam gi bu siggee dina dem ardo te bu demee ardo ñëwaat combat bi day gën a métti si moom parce que général day daw boobaa teel a jàppante bi comme lu nga wax rek mbër bu la wër ne xeex arrangé wala bëree moo la boo dawee jàpp da ngay fexe bëree jógee fa mais qualifié nga jël coup yu métti mu ngi jël ay coups ci suuf boo xoolee général da nga koy rokk. ay boobu de bu ñaaree ma am leneen lu ma ci lu ma lu ma ca yokk. mais na mooy si nag moom moom moom qualifié général moo ko sut bu bëggee siggi di ko dóor bala moo sëggaatee bay ñëw day fekk général def lu mu bëgg a def. waaw waaw da koy sàcc. général la ngay dóor waaye qualifié nga koy ñuuxu. mbokk yi journée sans production. lamb jaa ngi noonu ma andi ceeg si te taalibe bamba bi. waaw waaw te général boobu noonu na na moytu na qualifié bañ mu jàpp bu baax. général bu jàppee bu baax rek mën naa bëree lu mu bëgg a bëree parce que moo ko sut mën na kaa fàq mu ñëw wala mu tuur ko mu jàll. waaw gis nga kontaan naa ci yow Siteu làmb noonu général bu Faas Coly Faye bu Thiaroye kii Xadim Ndiaye ko andi ak Coly Faye moom général maa ngi gis gis ñoom Serigne Ndiaye ñoom ñëpp a ngi ginnaawam waa Fass a ngi ginnaawam njortu naa ne ardo dina ci am yoon wala boog. abit baa ngi wax ak ñoom abit bi sulle waat na. ah dafa am ku dóor sa morom général moo ko dóor ku boo koo dóor foofu mu ko dóor. tontu loos la ko am foo xamante ne dañuy ba règlement da bañ. waaye waaye waa Fass dañoo bàyyi pexe. est-ce ñu tàqali ko mu taxaw jàkkaarloo waat mu xeex ak moom. mooy lu ma la wax rek moo tax ma la demoon ardo wala leneen am si far yàlla dogal mu dóor ko ku boo xamante ne. Eh, laaw boobu baaxul gis laaw boobu baaxul. laaw bi baaxul te dafa laaw ba pare jàllale ba koy dóor mu te général li la bëggoon ci combat bi moo tax mu fexe yàq. ku li fay xeex bi muy wax yëpp du dëgg ci moom. non non da ko bëgg a sàcc ñoom mais général moo may a ñëwaat moom du ma ko def ndax nii muy sooboo yëpp bëgg a jàppante la te bés bu ko bés bu bu ko dóoree dina daanu. lu nga waxoon sànq rek fa laa jëm si gis nga bëgg jàppante boo ko bëggee trop te boo jàppee doo def dara jarul ngay bëgg jàpp ba forcer sa sa demin parce que am na demin boo xam ne boo ko forcer rek boo demee la boo fekk du baax na tee rek ba gis yoon mu doo ko dem moo gën a wóor. lamb lamb ngi noonu Siteu ngi noonu. la euh, Coly Faye bu bëggee jàpp bu bëggee jàpp général day moom daw sàcc ko waaye saa bu yoo bu saagoonul dina ci gis du ko bett lool. te Coly Faye ni muy dooree day bëgg a jiital tànk bii nii bëgg jël loxo bële dooree ko. àndul àndul loolu àndul loxo bu tànk bu nga jiital rek loxo boobu a dem bu dee da la ñaar yëpp di dem mais nu def nii daal na moytu loolu. su ma la déggee mooy qualifié dese naa mën xeex. de xeexam bi des na gis nga gis nga nu muy dóoree buy dóor day jóg carrément te loolu ba général dawee pekkate ko du ma fekkati dara lépp day ñuul. combat bi dàquma ci kaawoo. non dóor xeex nag dina si am nag. xeex dina si am Xaadim Njaay noonu mënul taxaw. qualifié qualifié daw na jël tànk général dëj na ko. qualifié ah, ah, ah, am taxawal xew lan moo xew lan moo xew qualifié dal na tànk général dëj ko. xot naa ko sama bàjjen yéeme na nañ déglu arbitre. su doon may arbitre bi dama leen di woowaat. waaw waaw. waaw waaw su doon may arbitre bi dama leen di woowaat. pour arbitre. su doon may arbitre bi dama leen di woowaat woowaat na leen. gis nga général macha allah rappliqué bu mu doon liggéey sànq di ko daw athlète boobu feeñ na si parce que da ko jël mu daw. dëj ko moom. général Coly Faye. arbitre sifflé waat mooy wan ginnaaw Coly Faye lañ lool. songu nañu léegi Coly Faye jël tànk ko général dëj ko général tuur ko arbitre bi waat leen ci diggi géew bi général a dox ci Coly Faye dox ci kaw général. Coly Faye a ngi dox ci kaw général la woon fa woon rek parce que Coly moom ala Coly rek moom songu bi la bëgg. mais général na loxo yi di dem loxo yi na koo bàyyi booy bi bañ a am accès du mañ a yegg si si moom mais bu banquee loxo yi bëgg a xaar ba booy bi mu doog a dóor du avantage am général ah, loxo bi dafa cax muy dem bu ko defee booy bi du mën a du boo sutee ku ngay bëreel ba doo dóor loolu noonu ànduma si loxo da koo bàyyi muy dem loolu ba du mën a songu boo gisee buntu na ko def lu ngay def maanaam na ko koy tàllal daal jeune ko da ko koy tàllal jeune bañ muy ñëw nga koy muy loxo bi xam ne fu mu toll si biir géew loxo bi day dem na bëree loolu moom général. général Coly général Coly Faye. Coly day ñëwaat de. day ñëwaat kay. maa parce que taxaw jàmmaarloo bi enjeu ko am wax loolu de day ñëwaat de. ndaama da mel ni baabooy daw jël sa tànk lal tegal ko fausse garde wala nga tegal ko garde normal xool ko droite ba daw appel bu bu ne jëy nga daw moom man nga ko bakkate takk centre de presse man nga taxabal man nga def loo neex mais xale yi dañoo war a jàngi ba xale yi a jàngi bëree. saanam lamb de chaque jour rek ku si nekk sa xam-xam. waaw Coly door na. général anière na 1 2 wàcc ko fa Kuuba. waaw waaw. ba ñoom ñaar ñu ngi léewtoowaat Coly Faye général général moo ñu wan gannaaw Coly moom lañ jàkkaar lool gisoo na ñoom ñaar dañoo ñamante léegi moo tax ku ci nekkee ngi taxaw téye sa bopp. ah góor nag bala ngaa bala ngaa nu ko olof Ndiaye di waxee góor xaw ma bala ngaa lanee sa morom. balaa nga koo yab. wala a foo ngeen foo ngeen laale. waaw waaw léegi looloo fa am dañoo laale ñoom ñaar instant kenn ku nekk da nga jox sa morom. respect dinaa dinaa la nettali dara. muy lan. Euh, dafa am ku doon xeex benn waay. Mm-hmm. xeex ak moom duma ko mu xeex ak waa ji waa ji duma ko. Mm-hmm. mu gis ko muy xeex ak keneen. mu ñëw ne àtte leen kii ay moom. ñu ne ko waaw waaw door na ko léegi. général gëddaat na. général door na ko léegi Coly Faye dellu gannaaw. Coly Faye xeex bi waxu ci dara bëree la bëgg. moo tax amagul buntu fi mu toll amagul buntu pour bëree parce que action bu mu amoon sànq bu njëkk bañ jàppante pour mu amaar ko day xaw a métti mais nag mais nag pour mu am loolu faw mu faw lii lii muy nii faw mu def ko waaw xeex bi mu bañ ñi faw mu xeex ak moom mën koo daw sàcc mais bu bëggee ñëw rek yooru du sotti ndax buy ñëw dañ koy gis dañ koy gis dana moytu coup bi bu bañee bu bëggee jàpp alfa mu jéem a jël benn coup gis nga te saa bu général mébee rek loxo bi ak gardam gi day des gis nga daanu Coly la mu la mu defoon ci moo gàmmu gay laa fa gisaat de maa la wax loolu defoon noonu defoon na ko si mook moo gàmmu gay ndeysaanam gis nga ko wàcc gi muy wàcc a suufe ba mu ko defee moo kéwél kéwél da ko dóor mu toog arbitre sublewaat mu ñëwaat kéwél dolli waat ko fa daan ko jël bu rëy loolu Iba Mar la woon ndeysaanam avertissement Coly Faye abit bi su diggante Coly Faye ba tey la ak général loo si mën xam ne waaye Iba Maar moom ñëw nañ dañuy jàppale lamba ja jeex na bu yàgg diggante ndongolo la woon ak Cheikh Tidiane général Coly Faye ne ko lamb jeex na ñun ñu ngi si général nday saanam ak Coly Faye ba léegi daal dara amagul déet aw aw ma eh Coly Faye dugal na eh, général dugal na na bàyyi loxo bi muy dem loxo bi bu koy bàyyi muy dem day am avantage avantage bu baax a baax moom général mais loxo bi bu mu ko téye. mais Coly Faye garde bi daa wàcc. garde gi daa wàcc général nag xam na loolu na bàyyi loxo bi muy dem. ñoo ngay liwaatoo ñoom ñaar. Coly Faye bu général di dóor boo xoolee si biir day. général jàpp général jàppante bi bugg ci dara fi mu toll nii xam na ne xeex bi mooy avantage am. bi mooy avantage am déplacement xeex latéral xeex latéral avance loolooy avantage si combat bi bu jàppante rek mën na see am ndam si jàppante mais jàppante bi du ko arrangé lu mu si bëgg du ko am. oh Coly Faye dóor na lee coup bu daal. nii la loxo bi bu koy dóoree dina am dara mais mënoo jiital tànk yi ba di bëgg dóoree loxo bele loolu laa doon wax sànq. mënoo teg pied droite bëgg a jëlee fee gauche wala laaw ko muy dem. moo tax saay bu saay bu mébee pour dóor rek da koy gis day avancé mais gis nga tànk ba mu jiital ba mu yóbboon loxo bu mu war a dem da koo dal mbëri al foog ñuy xalaat si loolu. général Coly Faye général na léegi waaye dalul. waaw waaw général Coly ba léegi rek gis nga. ba leen dugal mais général déplacement ba gaaw dafa xaar kuuba. général Coly kii Khadim Ndiaye ko kii suñu papa Moustapha Gueye ko noonu ci digg géew bi. général Coly général moom da léegi dóor waa dalul. général Coly général a ngi koy natt Coly Faye xeex naa moom léegi waaye xeex ba baaxul jël na ko jël na ko jël na ko eh, Coly Faye daw na yooru Coly Faye xeex ba doomu daanu di ci am. waaw waaw Coly Faye daa yooru léegi na mu yooru baaxul yooru du avantage am na yëpp doo dem mu yooru. ab njool képp ko yootu di ko jëli. kuy bëreeg général doo yooru wallahi yebal ba fees nga dem boo yooroo rek doo gis client da ngay di xeex nañ xeex bu métti na bàyyi yooru bi Coly Faye da dëggal boppam bu gisee lu leer mu doo ko dem bu mu jaay combat bi. Coly général. xeex nañ léegi. xeex bu sax am Diop andil Ndiaye. général a ngi noonu. Coly Faye nag boo xoolee bët ngi dem de. yaa ngi koy gis noonu. a ah, ku muy jël a tax. bët baa ngi commencé dem de nañ sóoraale loolu tamit de. est-ce que tamit général du mujj dooli foofu lamb ji am nu mu demee. Ah, ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn. gis nga mu ngi koy tooñaa xeex bi Coly Faye jéem a yëkkati waa loxo mu mën a xeex moom parce que xam ne avantage am xeex bi moom te boo xoolee coono am na ku muy commencé feeñ ndànk-ndànk nag. général Coly Faye. waaw waaw xeex nañ xeex bu neex macha allah cooy làmb làmb neex ta métti. mu ne ko ta métti Ousseynou doom yaay. général Coly ñoom ñaar ñoo ngi noonu ci digg géew bi. général nag léegi moo doon may woon damay jëm a attaqué combat bi gérer des nag. waaw parce que instant yi fu mu toll nii ñamante nañ ko te général lu mu bëgg mooy xeex bi Coly Faye lu bëgg mooy ñëw bi te général mayatu ko am accès si si yaram bi kon nag général na taxaw moom commencé xeex moom nag waaw. ñoo ngi Coly door na ko léegi général door na. baaxul kay. général Coly Faye gis nga. waaw xeex général Coly Faye. bu ko am waaw waaw général daw na jëli ko. Oh, Coly génn ko kuubu dal. waaw waaw. génn ko dóor ko attaqué parce que am na atu moo tax dafa am atu. da ko génn dugal ko kuu am na atu. léegi da koy ñemewaat moom it moom Coly Faye. lamb ji neex na waay. général Coly Faye. ne ko lamb ji neex na. ñoom ñaar ngay bëre di xeex. waaw wax dëgg yàlla ñu ngi wane ne lii moom grand combat la war a mel. fi mu toll nii nag ñoo ngi récupéré. déggoo ma wax bu coono feeñee rek lamb ji parce que kenn day bàyyeeku. te lamb ji moom balaa kenn di bàyyeekoo ne jël la am nañ bëree. gis nga eh, Coly dóoraat na Coly Faye bugguma loolu. Coly dóor na dóoraat. général waaw waaw général. da ko si xeex bi général. di gisoo da gëdd. gis na ne ko non non non colibé ngay signalé moo am droit àtte arbitre na oh général na ardo bu ñëwee nag lamb ji yàqu nag dina neex a neex a neex parce xeex la indiwaat ñoom ñaar ñëpp Coly Faye 4 pour Général 4 pour Coly Faye. dafa mel ni bu benn avertissement amee 3 ah. am na 3 avertissement Général am na 2. ñoo ñaar daal bu ñu naan bañ li premier bi sax moo dàqoon bi mi-temps bi. mooy li ma lay wax dañoo ñamante li naan ku ma ku mos jàkkaarloo xam na jëw a daax fi mu toll nii signature ba dina doon jëwante waaye ko jàkkaarloo qualifié taxaw ne maa ngi nii général taxaw ne maa ngi nii. billaay li li ma sam maam daan wax rek nee na ma ku xamul ku xamul sa njëg di nga xam loo jaayee sa bopp. maa la wax loolu waaye fu ci nekk fi mu toll nii ku ci nekk xam nga li sa waa li sa di jar ba tax na ñëw noonu ci digg géew parce que combat bi lu avance bi yàggoon wala waaw nag da ciy feeñ parce que boo xoolee ñoom ñaar xam ne ku ci nekk liggéey nga ndax combat boo xoolee mën na at général bi ma ko carré fii sànq naka la mot na nga woo wax lan laay wax ku toog un an waxuloo di entraîné bés bi jot jëf dong moo ci des. jëf a wax waaw. nee na ma nag bàyyi après bu ci calmé boo déggee ñu jëf moo tax fi mu toll nii ñoo ngi jëflante ñoom ñaar. waaw waaw jëf nañ de. mais dégg nga mu ngi naan ko bëreel. waaw waaw Coly mu ngi naan ko bëreel. mais daal premier combat bi ni mu gaawee deuxième combat bi ni mu gaawee troisième combat bi nañ gaawee ay bu ko lamb ji ba si spécial bi. koroon yaakaar naa jogee nañ fi. Coly sénégal général Ousseyn ba léegi dara amagul. ñooñu noonu ci digg géew bi lamb bi dafa yàgg. waaye ni mu yàggee tamit taxawuñ ci seetaan. ñoo ngay jëflante ñoom ñaar. ñoo ngi xeex ñoo ngi bëri. waaye fi mu toll ku ci nekk ngay taxaw di déglu sa morom lii la làmb yi. ku si nekk nga taxaw di déglu sa moroom mais ku si nekk na jëf dajeeg sa morom moo gën ku si nekk yaakaar naa taxaw di déglu sa morom Ousseyn. waaw fi mu toll nii nag calcul la calcul la waaw. Coly ah làmb ji ragal naa ma jeex a position arbitre de 4 Coly ah. parce que général expérience face lay doxee. Coly Faye ma war a ñëw jeexal lamb ji jamono ji bu ko jeexalu général li la koy seere bu ñu amaatee ku nekk avertissement lamb ji jeex mu am victoire. léegi nag xoolal général fi dafay bëgg a accélérer ki nga xamante ni mooy Coly Faye pour mu ñëw jaayu wala boog mu mu juum mu daan ko mais Coly Faye bu bu bés bés bu maturé na ko déglu temps bi jeexagul. temps bi jeexagul te bu mu jege saako yi benn yoon na toog ci ay tànkam ak moom su ko mënee jëli jëli ko général tamit na fermer garde dox ci kaw Coly Faye loolu mooy avantage parce que fi mu toll nii moom am na 3 kii di Coly Faye am na 4 avertissement soo maatee benn dañ koy jox ndam moo tax fi mu toll nii làmb ji nag yaakaar dina jeexee fii wala lu neex dina fi génn léegi léegi. lu neex dina si mën a génn wala mu jeexee nii parce que général am na 3 avertissement kële am na kat Coly Faye Coly benn général da koy jéem a moom Coly Faye day jéem a ñëw dox ci kaw général pour jeexal làmb ji pour am wala général jéem a mu am avertissement ñoom ñaar ñu tolloo. mais daal wax dëgg yàlla comme lu Ousseyn wax rek Coly Faye bu amee expérience dëgg mooy na dem jéem a lu mu am jël parce que lamb ji bu jeexee ni tamit ko neex na jéem a dem bëree ji bu général génnee wala mu anéer ñu tolloo avertissement. waaw moo tax gis ngeen. général Coly Faye ak général ndeysaanam Coly Faye général Youssou Ndour a ngi noonu borom victoire bu réy bi doomu suñu papa père Balla Gaye la moo fi daan bébé jul de barki démb ak Njaay ndeysaanam aussi na lamb ji daal lu may ragal mu jeexee par décision arbitre Coly Faye na xam ne am na carte avertissement na jéem a jël initiative pour dem bëree jël lu mu am baax na bu jeexee nii daal wax dëgg yàlla ah dana xaw a bett gaar yi parce que lamb ji séntu woon nañ si ëllëg gànga. mais nag mais nag général fi mu toll nii day jéem a sa combat bi rek ndax benn avertissement ah. Père Bour a ngi doon nga ne Père Bour. tey fan nga aaye tey. moo ma jaaxal bañ laay xam. Père Bour xamoo foo aaye. bañ laay xam nga dimbali leen ma. ah xooloo koo gën a bëgg rek dem aaye fa. ah xamul xamul dama ko de. wala nga xool borom sant bu gën a neex rek. ah surtout yow saytaan nga yow. déggal Père déedéet. aja Ousseyn. Lamb jaa ngi noonu Abid yaa ngi wax ak ñaari mbër yi. Abid kay léegi jaratul muy wax na leen taxaw déglu leer rek. est-ce que seetlu nga daa. muy Coly Faye bëggul daanu. mais temps bi jeex na wala jeex na. temps jeex na wala jeexul. arbitre kan lay jox victoire bi. Coly Faye nee ko général daan nga. bu njëkk a loxo da war a jël initiative dem bëree ji. général am na ndam. te indiwul daanu. général te pare pour daanu. ndax waa Thiaroye yëpp dañoo génn. Coly wasaare lamb jërë ngeen jëf gis ngeen nii la demee tey. saam woo ñu fi ci diggante général Coly Faye gis ngeen ni mu demee rëm daan na ki nga xamante ni mooy deux giga général daan na ki nga xamante ni nii mooy Coly Faye par décision arbitre parce que ki nga xamante ni nii mooy Coly am na quatre avertissement wala boog cinq kii di général am na trois avertissement ba tax na arbitre bi temps ba jeex na mu tas ko jox ki nga xamante ni nii mooy général bu faas jox ko ndam li leen leen fi andiloon ci wasaare làmb